su ne ngeen di yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ sunu boroomi xam-xam am nañ jafe-jafe ci wax ñu kan mooy Serigne Touba amagul nañ jafe-jafe boobu at tahaddi al wal a'zam wal a'zam mooy waxaguñ ñu kan mooy Serigne Touba dëgg-dëgg loolu moom mooy attahadi al azamu wal azamu wal azamu fal azamu ci murit gi ñaareel bi li waral loola mooy ñu am jafe-jafe bi mooy Serigne Touba ci boppam moom taxaddi la ci àdduna bi ba léegi si ndax euh, li ko waral mooy bu jëkkoon li li Serigne Touba fekkoon ci aada mooy doom day taxaw baayam su mag su ay doomam màggee taxawu ko moom itam lu moo fi nekkoon doomam day taxaw baayam ba baayam gërëm ko bi fi baayam jógee mu wutu ko ay doomam taxawu ko moom itam waaye Serigne Touba def na benn lu tax suñu borom xam wax ko si ko ko waxoon danañ noppalu ba duñu am soxla ci ñëw ëllëg ak yi ñëw suñu te am soxla duñu gis yi yi fi ndax lu ñuy laal lay doon def na bu njëkk bi taxawu way juram jàngaleel ko ci daaraam taalifal ko ay de ci daaraam taalifab téere nag mooy lañ la doon jàngal nga commentaire ko ci saw dégg loolu suñ boroom yi xam-xam la tàmbalee guñ ko def Sëriñ Tuubaa taalif na ay téere ci daara yi ma Mor Anta Sali Maam Mor Anta Sali jàngal ko ay dafa loolu tam lu kii mànne la kon liggéeyal na bàyyam ci googu fànn waaye Sëriñ Tuubaa moom ci boppam moom li tax mu nekk challenge sa tax bi mooy challenge jëkkante boo xam ne ku ci ne day jéem a gañe sa morom yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëriñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko ndax am naa ci moom kóolute goo xam ne buñ ne woon kaay marale tey maanaam ci gëm-gëm boobu ndax lan yoonu murit wi nga xam ne moom la ñuy tudd di ko tudd ci senegal di ko tudd bitim réew fenn fu nekk ñu def fa ay waxtaan murit yépp wala bëtiwaat nañ ko ba ne Sëriñ Tuubaa moom bu ñu lay waxal ci sëñ Murtada sëñ bi tudd na ko léegi sëñ Saalihu sëñ Fallu dañ la ciy wax ba àgg ci boo wëttuwut ñu ne la bu suñ tubaab ñëwuteen te ñooñu ñëw itam mu baax loolu am na ñu ñemee wax lu mel noonu ne bu fi ñëwutoon te ay doomam nekk fi mu baax wax nañ tëgg waaye sëñ bi yoonu murid yi bi ko suñ tubaab di taxawal amagutoon doom amagutoon jenn doom def na lim ciy def lépp ba jóge fi amagutoon ku am lu ëpp ñeent fukki at ak ci ay doomam ba mu fi jógee ba fii mu nekk lu fi doomam liggéey hmm? doomam jëlewul fenn ab tali fu du ci Sëñ Tuubaa ñenn ñu dul waa ko Sëñ Tuubaa ñu ànd def la muy def ba ku ci nekk mënees na laa tegal loxo ci dara na la lii moo ko sottal waaye li tax la na taxaddi bi ëpp solo challenge bi gën a rëy te gën a rëy te gën a mag loolu suñuy borom yi xam-xam nangu nañ ko nangu nañ ne bu fi Sëriñ Tuubaa bu fi doomam nekkatul yëf yi jeex na moo waral ñàkk yaakaar gi moo waral yi fexe man di man dara ñoom lañ ciy ñaw njot te moo ne sëriñ bi Tuubaa gi ñu nekk bi ko Sëriñ Tuubaa di sañ ci amagutoon kenn ci ñu xam ñu siiw Daaru Salaam gii ñuy jóge siiw na lool ci loo xam ne kenn weer dégg ko boobaak léegi ci ne ba ba fa Serigne Touba du jóge daf ko jox am seex Anta ak téeméeri dongo te téeméeri dongo yi Cheikh Ibrahima Fall bokku ci Serigne Ibrahima Sarr Njaañ bokku ci ñu ñu siiw ñëpp bokkuñu ci kon amoon na mbooloo ba sañ ci Touba ci loxol boppam néeg mbaar mañ ko fekk ka ko gis gis ko ba wax ko ba nit ñu fekk ko fa moo ko liggéey ci loxol boppam kenn dimbali ko ci dara bi muy dem bi ko tubaab bi jàpp anuta kenn moom dong nga àndoon dem nekk nekk Gabon Gabon ku fa dem da nga xam ne suñ Tuubaa challenge la ci àdduna bépp waaye waxtaane guñ ko nag àllub Afrique centrale man dem naa fa ba tey kuñ fa cëppeel mën na mën naa faatu ndax bari na ay matat bari na aw tàngoor bari na ab taw te ñun ñii fu ne fu mu ne wàtt wàtt ay ndox ñu seet fi dugg xamuñu ab taw bari na ay matat bari na nit ñu tekkiwul ñu amul benn positif ci xeeb nit ci ñaawalaate nit ba fi mu toll nii fi mu ne nii sax man mas na ma dem Congo ñu ne ma passeport diggante Pointe-Noire ak Brazzaville ma joxe passeport muy sénégalais ñu ne mu ne ma vous Qu'est-ce qui se hmm. Si le train venait, vous venez. Si l'avion venait, vous venez. même si rien venait, vous venez. Vous savez la famine Vous savez la guerre waa ji ne ko laaj ko ba xam am na arachide am déet ci poosam arachide gerte nga xam ne bu ñu tasee ko Sénégal dañ koy ñaawal dañ koy xeeb dañ koy doyadal te ba fa Serigne ne nekk dara woon waaye Sëriñ Tuubaa kenn waxtaanee ko ko laaj ba mu def li muy def lépp ba àggal ana kenn kan maa ngi taxaddi ñëpp kan moo mën a taxaw ne diw doomi Sëriñ Tuubaa defal na Sëriñ Tuubaa loo xam Sëriñ Tuubaa mënu ko woon a am kenn mënu koo wax waaye waxtaanee guñ Sëriñ Tuubaa waxtaanee guñ ko buñ ko doon waxtaanee lii léebu di wax naan gaynde gu dank gu gu gu der bu bu bu mer ne dëngañ wutali dég bi coowul mbott ya fa nekk wala picc ya du ko tee naan bu fekkonte ne jël nañ Sëriñ Tuubaa gàttal ko gàttal ko na gën a gàtt yam ci kepp ñun duñ tiit luy ñëw ndax gënoon naa metti moom kenn lool te léegi gën nañoo bari léegi fu nekk ña fa ana lu ñuy tiit ci ay taxaddiyaat yuy ñëw wala ay télévision wala ay rajo wala ay nangam te Sëñ nekk fi ba léegi Sëñ Tuubaa ngi ba léegi jógu fi ndax bu fa doon bu fekkonte ne nekku fi ba léegi ba mu fi jógee 1927 Tuubaa du agsi fi mu agsi njëriñam du mel ne mu mel Daaru Musti du mel ne mu mel Daaru Salaam du mel ne mu mel fenn du mel na mel ba ñu ngay yëkkate ay xasida fu gën a sori waaye ña ko fa yóbbu yóbbu wuñ fa demuñ fa ngir yóbbu fa Sëñ Tuubaa dañ fay liggéey rek di fa dund Sëñ Tuubaa waaye nag dañ leen faa war a fekk wax ñooña ñu nekk kan mooy Serigne Touba wax ko waa réew mi bañ xam ñooy kan kan mooy Serigne Touba ndax boo weesoo fii njëriñam nangami kilomètre képp juróom jëm juróom jëm kilomètre da nga gis ci am penc ci ab bu nekk fa. bu ne fang doon croix bu mag fii ci ginnaaw njëriñam juróom-ñaari kilomètre maa ngi tëje ci lu benn waykat bu waxoon man damay topp lépp lu bari boobu koo xam ne ci Lingala lay way Lingala. daa ñëw fii ku ñuy wax Ambroise Gomis dalal ko ci Télé Sénégal. loola ci Sëriñ Tuubaa rek la walaa bal ne ko ndax yaa ngi am ay contrat bitim réew mu ne lu ma koy doyee mu ne ko ni ko samara mi defee mu ne ko man fu mu mën a dem fu mu mën a am contrat li ëpp ñi may seetaan ak ñi ma tax di wax mooy africain yi Côte d'Ivoire laa jóge ñëw Sénégal bu fi jógee Mali laa jëm dama bëgg africain yi seen bopp xam ma ba fi ñuy dem yóbbaale ma fa waaye Sëriñ Tuubaa murid yi dañ koo def yëfi wolof dañ ko def jëmm ji dox am na kilifa gu mag gu fii ci dëkk bi dañ koy xaar ci armeel yi ñëpp di ko nekk naaj bi tàng jër ba mu ñëwee mu joxoñ benn waaye dafa demal jullee ko man ma agsi ba ci moom ma ne ko sëñ bi soo ko julleeloo kii kenn duutu la xaar ci dara ndax ñu ñëpp ñu ngi fi woon ba mu ko jullee ba noppi ne ma nañ gise ma dem fekk ko fa mu nekk ndax sañ na ma woo mu ne ma loolu lu am solo la man ra ay ko mun kar ma ne ko déet say jëf jàppee ko munkar munkar mu ne ma munkar mooy loo xam ne mën naa mel na mën naa gën na mel rek waaye yéen ñi nekk ci biir Touba rawatina biir di ko tàmbalee ci barab sàngam ba barab sàngam Touba jumaa ji ba ci corniche bi na ngeen ko bàyyi xel gën ko waggar ma ne ko sëñ bi ndax am naa ndigal mu ne waaw ma ne ko sëñ Touba day nee na dafa dugg bi dundu suñu borom suñu borom amut makaan amut zamaan ku doon nelaw mën nañ koo jëlee nelaw nelaw dëgg dëgg dëgg dëgg mën nañ koy jëlee mën nga ko jëlee fa la neex yóbbu ko fa la neex xamut fu mu jógee xamut fu mu jëm xamut ban heure jot bu fekkee Sëñ Tuubaa dañ koo bëgg a def jëmm joo xam ne danga koy làmb di ko boo ko daggee mu nàcc mais boo ñu seeti feneen ndax jëmm moom day al day day yàqu mu day yàqu waaye Sëñ Tuubaa ay mabadi la lu ñuy dund la su fekkee li ñuy tere ñu ngi koy tere diggante jumaa ji ak corniche bi man maa ngi dëkk ci ñaari ñaari ñaari fukki mètre ak corniche bi corniche baa ngi sama gannaaw xanaa kon su ma neexee génn def la may def dellusiwaat te corniche bi dafa fekk Touba bu ñu ko dindi woon dootoo ko xàmmee mu ne ma déggoonoo bees ma ne ko Sëriñ Tuubaa amutoon soxla ci suuf amutoon soxla ci dëkk ci nit ñi la amoon soxla fu nit ñi dem dañ ko fa war yóbbaal di ko dund li may tëje nag mooy bëgg nañ ñi ngi sàkku ñun ñëpp te ay murit ci suñuy woroomi xam-xam su ñu wanee nañu ñu ngi leen wër ak i gunt ndax wolof laay waxal ay gunt ak jaasi tànk rikk nañ ñu wan bunt boo xam ne dañ cey jaar génn ci lu gaaw te duñu xuriku tañ bañ ñoo dawloo ndax am na loo xam dawloo nit ki la gaa yi dawal gaa ñëw bu ñu ñëwee nga dee gaa yi mënu ñëw wàññi dara mënu ñëw wàññi dara man ci sama pas-pas mooy Sëriñ Tuubaa du ko ñuy domp di ko kaar fi ñu toll nag bu ñu jeexee aw nit dana ñëw jël ko yóbbu ndax lislaam ab naar indiwu ko Sénégal ab ab xare indiwu ko fi liñ bëgg mooy ñu dañu wax ci Sëriñ Tuubaa loo xam ne lu ñuy teg loxo la ba man koo toppandoo man koo roy waaye tey ngeen dee gaa yaa ngi ñëw ñu ngi leen wër xamu nu ngeen def ba génn ci la fa Sëriñ Tuubaa la Sëriñ Tuubaa dajaloon mënut a ñëwaat koo xam ne dugg ci dëkk nag ku génn lu ma rey ko loolu mënut amati si wala koo xam ne daa xonq coy boo yor kas ko wangaan boo ko seenee daw loolu mëntuta am maa ngi jégalu bu baax a baax wasalaamaaleykum suñu seen de télévision Rafah TV saa su ne rek du dañ di dox ay jéego ngir lépp lu yokk suñu diine waaw loolu nag tax na saa su ne muy jël ay matuwaay ngir mu gën a yaat ngeen mën a télécharger suñu application ci Play Store waaw ngeen di ko mën a am ci seen téléphone portable ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna wërngal këpp gannaaw bu ngeen defee Rafah TV ngeen mën a am nag bépp xeetu événement moo xam muy màggal yi cant yi conférence yi xutba jumaay gàmmu yi wala lépp loo xamante ni bii ay reportage wala documentaire interview lislaam wala fii ci dëkk bu sell bi di Touba ak ay émission yu am solo ci wàllu diine ngeen mën ko am anam yi ngeen ko bëggee Rafah TV waajal na waaw une chaîne de télévision culturelle et religieuse une chaîne de télévision engagée pour promouvoir l'enseignement islamique waaw ngeen jokkoo ak Serigne Mourtada Rafah ci numéro yi ngeen di ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer yu am solo yi bàyyi ko ñëppay dañ ak réer